tey jii dañoo nekk ci mbënn metti na trop waaye lu mu metti metti aussi dañuy bëgg nit ñi ñuy ànd ak seen xel lu mu metti metti parce que tey kenn bëggul kenn nekk ci mbënn kenn yéenewul kenn nekk ci mbënn mais nag yàlla moom moom addunaam bii moo yor programme dañu ne coronavirus ñëpp tiit ñu nekk ci covid bi lu nekk ñu def ñu jékki-jékki yàlla indi ndoxam bu bari nawet nañ ñaan yàlla ndox mu bari moom mooy raxas Covid bi yóbbu ko mu dem dañoo xam ba xam ndox mu bari mi lu tax suñu borom wàcce ko mais Sénégal fii lu fi am ñu bëgg ko politique bu taw bi bëree ñu ne maire ñu ne président bu taw amul ñu ne maire bi ay na gaaf président ay na gaaf lu yooyu wax Sénégal wax ji nañ ko wàññi. nañu bàyyi li ñu war a bàyyi yàlla ñu bàyyi ko ak yàlla politiciens yi ñu xàmmee politiciens yi bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy intoxique dañuy jéem a taal pour lan pour seen intérêt bopp ñoom falu mm. ñun nañuy xool ñi nga xam ne intérêt général moo leen tax a jóg intérêt askan bi intérêt réew mi ñuy déglu ñooñu yaakaar naa loolu moo gën ku yàlla fal ci réew mi nañ koy jàppale mm. ku yàlla fal ci commune nañ koy jàppale mais Sénégal ku ñu fal ku nekk rek yow nga liggéey nga bañ liggéey yow askan bi bëgg la def noonu bëgg la yéene loo xam ne kenn xamu ko mais loolu kañ la ñuy dem bu dee ne kenn du dem ku nar a dem ñu yóoru tànkam mu wadd mais kañ la Sénégal di avancer yooyu il faut ñun ñi nga xam ne tey la yàlla nattu ñuy dugg ci biir terrain bi ñii di ay relais communautaire ñii di ay bàjjanu gox. ñii di ay ay yor ay réseau sigil jigéen ñii yor ay nangam ak nangam il faut que ñu wax ak nit ñi ñu jéem leen sensibiliser jéem a indi seen xel ci li nga xam ne tey loolu mooy mën a développer tax Sénégal mën a dem ci kanam suñu ko deful lu bari de mën na yàqu ëllëg comme ni mu ko waxee jeunesse bi ñoo yore ñoo yore réew mi suba te aujourd'hui boo leen seetloo bu baax jeunesse su Sénégal bi dañuy waxante dëgg rek quoi boo leen ko seetloo bu baax a baax tey lu bëri loo xam ne jeunesse ñemewu ko woon tey jeunesse mi ngi koy ñeme di ko def jaxran jàkkaarloog yaayam jàkkaarloog baayam jàkkaarloog maamam jàkkaarloog autorité am tout le monde te daawuñu ko ñeme askan bi léegi da nga naan leen xóob rek ñu ne xóob foo leen jëme rek ñu jëm boo ne xóob kaay leen lakki mairie ba ñu topp la daw taal mairie ba taxaw xamuñu sax mairie bi lan mooy importance su mairie ak lan moo nekk ca mairie ba xamuñu sax ba xam mairie ba seen yëfu fa nekk xamuñu si dara mais loolu nag du askan buy développé askan bi war a développé réew day nekk askan bu am conscience buy xalaat lu baax balaa muy def dara mais du askan boo xam ne fu ñu ne ko xóob jëmee rek mu jëme fa loolu nekk lu rafet inondation bi lu nekk ngay dégg ci réseaux sociaux yi ñu yekk ci maire walla ñu yekk ci Macky ak saal ñëw na Kër Massar ñu ne lu tax sol costume sol costume ak génnee ndox ban problème lañ am ñun li ñu intéressé mooy président ñëw na seet suñu si jëmm massawuñu génneel ñu ay solution daar daar yu war a génnee ndox mi indil ñu fi comme ni ko buggaan Gueye waxee ay moto pompe 800 ay moto pompe 1000 ay moto pompe 2000 nga xam ne loolu état rek moo ko mën indi mu ñëw indil ñu ko pour dindil ñu ndox mi ci saa saasi boo pare na tegal ñu programme nañu octobre ma démarré canaliser leen commune bi yëpp am jeex ba dootoo leen am ndox ñun loolu moo ñu intéressé loolu kay dañ war a tàcc doolu hmm? doyul mu ne naa leen defal département ndax lu tax mu wax département xam na ne Kër Massar rëy na solution nag bu amee bu ñu leen di dee solution da ngay sant gërëm waaye xalab yi ak wax ju ñaaw ji nañ ko jéem a éviter nañ jéem a gérer suñu askan bi surtout les jeunes ñi nga xam ne ñoo yore avenir ëllëg